asalaamualeykum asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ñu ngi ñuy ñëpp di ziyaare jiitu ji mu ci am solo lépp alhamdulilah rabbil alamin Cheikh Mahamadou Fadil taxawe na ko jàng na xotb bi buñ ko xamoon itam mu de am ci tabarruk barkeb xotba bi mën noo jëriñ biir biti dolli ci itam kàddu yoo xam ne xam-xam la fa tabarakallahu kon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 sof ko nag ci pastéef bi nga xam ne moo am solo def suñ ñetti jëpp mooy jëm ci suñ boroom loolu foofu lañu mën a tàmbalee jàng sëriñ bi di ko jéem a xam di ko jéem a dund jàng sëriñ bi nag il nga xam ne sóobu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 ak yonent bi nga xam ne am na ci ndigal sidina Muhammad ak biñ ko gisee ba buñ ko noppee gis ci diggante boobu rek la nekk jaamu boromam liggéeyal yonent bi ci kaw sunnaam diggante bi tëlu fi dara ndax àdduna fi ne ak jëmmi bakkan doomu aadama ak yeneen gàllankoor yi seytaanee bànneex yooyu sëñ bi mustatal adduna ba yooyu di am ci moom wàll kon buñ ko bëggee jàng il faut nu jéem soobu sóobu yàlla yàlla di ko gën a jéem waxtu wu nekk ñuy di gën a sóobu waxtu wu nekk ñuy gën a mën a dëddu adduna dëddu adduna téewuta lekk téewuta naan téewuta mbubb téewuta denc téewuta am kër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 suñ lépp di góorgóorlu bu baax foofu la jëf tàmbalee nu gën a góorgóorlu lu baax nag te lépp lépp lu gën a gën gën gën koo delloo gën a ci suñu boroom rek di yéene bu baax te Yàlla tax di wax lu baax te yàlla tax di di jëf lu baax te yàlla tax bàyyi lu bon te yàlla tax loolu foofu la jëf ji tàmbalee mu lépp lu lu jëf nag ci loo xam ne bët mën na caa tegu lépp na yàlla tax nu da ko def di jëf góorgóorlu suñu kam kàttan wala muy jëf joo xam ne mbët mënu caa tegu ci yi nga xam ne mooy jóge ci jikko yi góor góorgóorlu ci bu baax suñu kem kàttan lu mu ci jëfe rek na yàlla tax mu dul du ko def loolu day daal delluwaat ci eh, pëstéef ak ngor ak jom waaw ñaari ma yooyu nga xam ne moom la doomu aadama am muy ngor ak jom il fokk bala moo am njëriñ dëgg dañ koy sof ci pëstéef kon euh, nu gën cee góorgóorlu bu baax ndax boo boolee sa ngor ak sa jom jiitu jiital sa pësteef ci jikko juree la lay indil ci lay delloo jikko juree nag ngeen ko xame loolu la sunu borom tagge yonent bi bu jukki jikko juree xasee am nag benn safaan duutu la mën a dog loolu noonu rek la deme maa ngi eh, sant mbokki jullit yëpp ci seen lislaam sant mbokki taalibe yépp ci seen taalibe di gën a ñaan suñu borom rek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 ñu gën xam sëriñ bi ndax lu ca war rek sëriñ bi noppee na ci loolu foofu lañu tàng tàmbalee jàng sëriñ bi ak dund ko jàng gi xam-xam la ñu xam ne sëriñ bi fi ñu ko gis ba fi ñu noppee gis tëlu fi dara loolu boromam dund gi nag mooy jéem gi koy jéem di ko jéem a xam di ko jéem xool loolu dana nu dana dolli suñ xam-xam ci moom dana dolli kàtt nit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 jéem a xam sëriñ bi jéem koo dund jaamu yàlla na mu gën a selle lépp mu ngi ci biir loolu kon jërë ngeen jëf yàlla noonu suñu gën a gàttandoog tawfeex sëriñ Tuubaa ba mën nu gën a def suñu wartiif ginnaaw ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ginnaaw jaamu yàlla rekk nu fi indi te sëñ bi lu ca mat def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 njëriñ yëpp a ngi ci biir yi saa ci biir ci ak bitti adduna ak àlaxira kon yàlla na ko suñu borom defal te nangul nu suñu lépp jërë ngeen jëf mu ngi jégalu bu baax a baax lii du xutba du dara waxtaan la rek kon eh, alhamdulilah rabbil loolu mooy sama yéene eh, di seeral ñëpp waxtu wu ne may gën a yeesa sama jaayante sëriñ bi waxtu wu muy gën a feddali sama laxasaay ngir liggéey sëriñ bi ci ñaari ñaari diggante yooyu rek lañu nekk jaamu yàlla ak liggéey sëriñ bi nii ma ko waxee rek ni ma ko tuddee ci boppam ba ñëpp xamee ko ni abdullahi wa xadimu ci diggante boobu rek la nekk nun kon sañ nonu mun nu ñàkk jaamu yàlla ndax yàlla moom waaye nag nu liggéeyal boole nu nekk ci diggante boobu di jaamu yàlla nam ko nam nu ko digale ak na ware di liggéey sëriñ bi nam ko bëggee nam gën a selle jërë ngeen jëf